ca njëlbeen foire la woon cofel di dox ci diggante waay sàmm yi ak gétt gi tax mu daldi soppeeku doon salon international de l'élevage tey jii tey boo xoolee Sénégal yu bari xamuñu woon doon salon yi ñoo tax ñu gis Sénégal yu bari dañ koy dégg mais daaw ko gis comprendre fi du du xar rek quoi yaa animaux yi bari nañu mais tay ku melni ni na fay ñew xol xat di nga xol un mâle de 2 ans ni mu wara toll nga xol un agneau de 3 mois di nga xol ni mu war toll. soo xolé tay Sénégal la yemoon mais léegi international la sous raison bi yëpp ñëw nañu Mauritanie ñew na Gambie ñew na Niger ñew na xam nga te day gëna a yaatu nag quoi salon international la légui te foire lañ doon wax légui salon international la donc objectif avancé Ahmadou Bamba borom bergerie Podor le douera, bi première participation au ci salon donne lu mu salon franchement c'est super j'ai pas regretté de venir quoi honnêtement je ma sama parce que ça lay permettre nga am visibilité Manam, si les gens m'appellent partout partout mais est-ce que lii réellement Podor Le Nek?

dafa bëri façon quoi mais loolu ñun ñu ci biir ñu ci bëri ñoo la ko mën a expliquer mais boo xoolee xar yi ni ñu bëree fii presque deux cent soixante-dix box xar yëpp bokkuñu. xar coow li bëri na mais finalité ba ndawal la ndawal coow li coow li ah donc sooy yar xar da ngay yar xar bu mën a rëy pour dans l'avenir yow soo jaayee tabaski soo amee kuy ngénte soo amee xam nga di nga mën a am xar yu mag même ba ci femelle yi aussi da ci am giir yoo xam ne.

Euh, mensuration yi côté poids et tout si laadum nga ko mën a gis mais mënoo ko gisee beneen xar mën nga jël xar yar ko cent ans du am pour mensuration yi ñuy am. donte du ay xar rekk ñoo nekk ci bile salon wante jongante bi ñoom lañu ko jagleel waxal ñu teg ay poñ yi nga xam ni ñoo war a mën a tax yile mala bokk ci. su dee concours mâle soxla nañu hauteur au soxla nañu TP soxla nañu LCS soxla nañu poids soxla nañu esthétique sur cinq critères.

compétir ko am 12 mois parce que foqul donc foqul lañu wax donc man maa ngi xool est-ce waruñu ko def deux catégories parce que ko am 12 mois bëgg compétir ko am 6 ou 3 mois kooku do am ben chance quoi te pourtant xar bi am 3 mois mën na dem ba ëpp kooku dans l'avenir donc loolu war nañ ci war xel aussi. seeni mala ni seeni doom ba tax ku ci nekk si ñoom duppee ko ab tour Boy medina benn la si rasu laadum donc ci xar ñuy wax monstre mom mu ngi tollu ci ñaar fukki ak juroom ben boy medina bi actuellement mi ngi la la monstre la papa moy Karim éleveurs aussi xamé nañ ko quoi xam nañ ko da bo xolé corni vraiment c'est un bon mâle autoro garo actuellement bi toisé sama à deux ans war na mais je pense que dans le dessin de Lobari, parce qu'ils combattent les nous sommes aussi. Parce que nous avons 4 ans, 3 ans et demi, et moi, nous sommes 2 ans. 2 ans et demi, quoi. Dormi Midjour aussi, nous sommes extraordinaires. Dormi Midjour n'est pas refait. Surtout production. Je suis comme quoi. Djamal Nak, surtout magistral avec Saloum Saloum. Tu es août 2018, le Ganesi Aduna, dont tu es beaucoup si Harry Djongante Tibile Édition. édition. C'est melokaanam jéggi na le tey boo élevage bi ñuy wax tey Sénégal magistrat la Saloum ñoom ñoom moom ñoom la wax ay borom doomi or C'est la crème C'est le top des tops il est né le 15 août 2018 euh, Jamal papam di Amdan Amdan ku ko xam muy Saloum Saloum ak César ñoom si côté paternité bi côté par exemple magistrat bi ak benn doomu euh, soi-disant euh, Bachir ak première dame ñom ñoko que cheikhou la Zekone mom mo jur yaayu Jamal jël nañ des mensurations wax quoi comme du lu officiel mais à domicile jël nañ ko mu ñi satisfaction totale là où je vous parle je suis en train de négocier fils du foire bien vrai que nous sommes des des invités dañu invité ci salon bi mode droit dugg concours mais j'ai demandé une faveur ñu may ma juste ñu jël ma les mensurations de Jamal pour ma mun ko def si sama base de données et c'est acquis bientôt dans cinq minutes une damay dem war nañ ma wo légui pour ma yobou ko gars yi nattal ma comme ça ma def ko ben mu nek ben base de données bu fiable parce que natou kër du natt man damay jàpp lima li sama bop du luma mom mais luma ñeu indi ko par exemple avec des officiels ñu ñu nattal mako sévèrement ñu ne ma li la am là dina nek ben base bu xam dina si permettre mu mën a liggéey. homologué rasuladum laa ab mbëbët bokk ci kuréel yi nga xam ni ñu ëmb sàmm gi tax ñu àndandoo di wéyal ab liggéey ngir lu ni mel mën a antu. homologation bi ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi siy liggéey parce que man je suis membre de la FENAFO donc loolu ça fait l'objet même de nos journées scientifiques yu ñuy faral di def ñu ngi siy liggéey bu baax a baax et bientôt incha allah dinañ génne catégorisation bi ñu doog ko homologué. et là boba suñ si tombé d'accord rek dana gën a yombal nit ñi liggéey bi aussi dañu permettre aussi ñu am des banques de sperme par exemple tey su ñu les des mâles raceurs des mâles géniteurs nous pouvons, nañ jël par exemple seen sperme def ko dans des banques nous xamante ni tey dinañ ci ko tas à travers le monde à l'image aujourd'hui des américains nous avons xoolee tey type d'élevage bi ñuy def benn mâle mun am plus de 2000 produits donc banque yooyu nous ñuy bëgg créer et inshallah, nous dinañ fa yegg avec la FENAFO c'est notre objectif principal. La Ladoum ku qu'on wax Vieux Sadassi dëkkee sa Thiès moo ko njëkk découvrir mu doon ab race bi nga xam ni sénégalais yu bari tàmm nañu ko ci wàllum élevage.